arbitre bi sifflé na deuxième combat de la soirée Niang Ballo Aidara Aidara mbokk yi moom la ñu jàkkaarloo Niang Ballo moo nu woon gannaaw Niang Ballo Aidara Niang Ballo na léegi eh waa la eh, eh. Aidara lu muy def nii ñang baaloo xale yaa ngay xeex ñang daw na sàcc ko Aidara da koo gis ñanga ngay xeex xale yaa ngay xeex waaw waaw combat xale a neex yaa nga ca waay waay abit loo bëgg xale yaa ngay bëre eh eh eh <laughs> lii la eh ki ana ay mbokkam takk na ko ñang takk na ko waf na ko caxabal ba oh ñang ay dara ay dara la nga baaxul ñang ñang oh ay dara daan na baalo daan ko jël bu rëy da ko mbot ko jël bu rëy waaw waaw nee na dama am doole da ko takk waf ko caxabal ba eh, ay dara ngi noonu ñang am na lu ko bett du loolu man man nëbbu ma ko yàlla. man maay sa papa ci làmb. mais def naa lu ma waroon def lépp li nga war a def yëpp. waaw ma am ñàkk moo yem. waaw demal nga topp sa ay supporters nga continuer def. waaw loolu lii dafa rafet demal. maa ngi jégalu baay. waaw mais bëgg naa la. waaw ziare naa la bu baax a baax. ci loolu. waaw ñuy sant bu baax baax ne si lañ newoon rek suñuy entraînement xam nga saa bu ñu xëyee ne si li ñu a ne rek. Eh, gëj nañ laa gis waa toll. waaw ñu ngi si li bi nag de ñu ngi wàcce de démb rek maa jël nguñjal. Eh, waaw démb rek maa jël nguñjal. Reug 2 foo toll. waaw am nañ combat le 27 février ñu nag Jackson. Jackson bu buun Jackson bu buun waaw am nañ combat. waaw di woo waa jandeer gi yëpp diaspora bi xam nga tund jandeer rawatina waa Kër Mbir ñu jàpp si comme ni si daa jàppe diaspora bi ah ñoo moom ñoo moom combat bi quoi rawatina Cheikh Baye Fall ama xam nga diaspora bi daal ñëpp kuy jàppale tóor ñu ngi lay woo si la 27 incha allah la 27 baax na ci tóor lu bees tàq la incha waaw wasaare lay àndal. ziar na. maa ngi delloo ziar wér. ci loo ne. waaye naaj kay. nga waajalee. waaw waajal naa ak sama waa Cambérène yëpp ma ñëpp boole xam nga maa ngi doon waa Cambérène fas yéene tey ñëw bëggal waa Cambérène incha allah waaw. tey naka li may bëre mooy dal ànd ak xam nga ànd ak discipline ànd ak dal yan nga combat bi. mais nee na lépp lu fi xew moom mooy def mooy dóor mooy mooy xeex. mën na def lépp mais maa ngi koy foo teg loolu fu leer fu waaw waaw na xam nga nag di encouragé sama rakk tey dafa daanu waa ñang baalo sama rakk barki alxuraanu karim di ko encouragé bu baax te yéene woon nañ ko ndam si kattanu borom bi suñu soxla mu am ndam wallahi azim du ko ñaanal li nga xam ne làmb nii la la góorgóorluwaat xale la lépp yoolam dafa leer nañ te incha allah yàlla da koy jàppale borom baax la lay wax am lii waaw sant yàlla di ñaan yàlla na yàlla may ndam tey combat bi dama koo fonk ñi di bëre grand combat samay moroom lañu kon bu ma demee bay bëre am lycée dara la mais xaaral léegi. mais lan moo waral am lycée yaa ko taamu wala dañ la ko. moom moom tànn moo fay sax pour bëre man. mais est ce yaa ko awul fii moo gën a nooy. daa bëgg boos rek. Ah. waaye est ce dina ko am. yàlla bu ko am. <laughs> waaw mais bëgg naa lay fay bu baax. ne. sant ànd suñu raq. ngeen kan ngeen àndee. yii lee moo def lii esaat bi. Ah, foo ne. mais fan yi lan saa neexul de. Ah, sant rek ni ñaan yàlla booy bi borom bi defal ko ndam bu sedd xam nga. déedéet ci booy bi damay ñëw ci combat démb bi parce que gis nañu euh, euh, Pape Ndoye dala daan tax ñëw jëlal a revanche Pape Ndoye teg ko ci Pape Ndoye nee ba léegi génnagul bi lan saa. waaye eh, Pape Ndoye waxul loolu la loolu noonu loolu noonu yéen ñi ko wax. Pape Ndoye kenn limal na ma ñaari adversaire nee na ma Tidiane Faye su bëggee na ñëw ah kii Coly su bëggee na ñëw. non ñooñu essayé nañ bëreeg moom loolooy problème bi nag. mais làmb boole ne leen de bu duggee lan saa daan fa ñaan bu ko neexee mu laaj Tidiane. waaw ah, mais loolu dara barke sëñ Touba loolu dara ñu ngi koy encouragé nag mbër la xam nga mais làmb mën na ko boolewaat ak nit léegi. ah bëgg ma day PAM doy far ñu ma jox ko ma jox ko sama bakkan bi. Eh, jox ko sa bi ma jëflante naa ak yow ba pare. ndax loolu ñu ngi sant xëy na loolu la ko borom bi may mais dinañ bëriwaat man gëm naa loolu man. bëriwaat rek Pape Ndoye. waaw man loolu gëm naa ko. foo teg loolu amul. waaw làmb ngi suñu kanam yàggul dara. lan la ñëw man ak yow ñu jàkkaarloo. heure boo ko bëggee amul benn problème ñu ngi dox combat mbëri ñoo nangul jël maa ngi toog di xaar. yan mbër ñoo la daw yow tamit. mbëri nag xam nga mbëri ko si lim mu sonal la. waaw dañ côté ba mu ñëw. waaw ñu ñaanal sama rakk ndam ndam bu sedd guy incha allah. caat foo quatre fois dégg naa avance bu ñëw nga delloo ko yow fan nga teg bëri ba daanu avance bu ñëw nga deloo ko. yow fan nga teg ne avance bu ñëw man dama koy delloo. mooy dégg sa combat taxaw na jékki-jékki combat bi yàqu. si man de man ku ma ñam doo taxamtiku moo tax pour ma am combat dafay jafe mais damay bëri la 27 février man ak alliance Baldé bu bu bu bu ko yàqul kay. alliance Baldé mi war a bëri tey tey jii. ah day bëri tey yàlla nga. day ah, eh, ci xale booy pire la jël. waa mais làmb la rek am na gëm-gëm mais man la 27 incha allah Iba Maar la. waaw foo toolu. ñu ngi si kawam di taxale rek indi suñu xarit suñu. nag lan saa neexul. waaw mais yàlla moo ñu ko teg rek du neexul de ñun ci victoire lañ jóge semaine bee semaine bii baaxee lañ ñaax. ndooyu dugg bi lan saa bëgg koo bëgg leen a tëralee ñëpp. loolu du dara yàlla moo xam na may woon. dese na fa de nee na génn gu fu. waaw loolu loolu maanaam waxu mbër la rek yàllaa ko dimbali mu dugg foofu yàlla suturaal ko may ko ndam ñim daan ñëpp ay champion lañ te daanul ay cuune. mais yàllaa ko def loolu mais bisa ngi ñëw ci bis yi ñun xale ñun ñooy màgg Pape Ndoye fu ñu ko fekk dañ koy lekk ndax liñ ko mereel xale ñun liñ ko mere ñun xale yi rek ñoo ko mën a faj mais du kenn barki sëñ Bamba bis bu ñu màggee ci làmb baax na làmb lépp aar la kot su nuyu naa la waaw mais waa Wassare maa lay fay yaa ngi ci jàmm waaye sant yàlla bu baax a baax naka ngeen waaw sant yàlla bu baax rek di julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sëñ Babacar Si waaw bàyyi xale la boo xam ni sérieux na bëgg na li muy def ñam na traitement fi mu toll nii amul lenn lu may nit xanaa lu jógewul ci borom bi mais bu dul si. mel ni da ngeen jël sa revanche. non parce que booy bi daan mu bëgg ñu daanal mu nekk booy bi dañ ko yab dañ ko daan nañ ko booy bi daf ñu daan bëri ñëw bu ñu daan mu munu nekk dañ koy dañ dañ ko yab te dañ ko yónni lañ ko wax bu ko defee làmb du yàgg incha allah nee na bu la neexee ngeen dirisé ngeen xeex ngeen puus ngeen nangam mais moo leen di daal. waaw jërëjëf yàlla baax na nañ gisoon après ci kanam yàlla baax na mbër nuyu Ousseyn yaa ngi si jàmm na ngay tey maa raw yaa ngi si jàmm eh, mais da ngay wor donc ma tafa yow maax yow dañ doon déggante lépp mais léegi ins bi comme que xewi naa rek barewaat nga si man xam naa ñu xewaat ñoo bees xew woo ko def ndax dama lay woo plateau non loolu nga war a def dañu war a waxtaane yàkkan dafa am lu ma metti dama ko war a kaasaale plateau dafa am lu ma metti parce que làmb ji dafa am samay autorité yoo xamante ne ay politiciens lañ dañ maa nax liñ ma naxee mooy Ouzin man ku xam ma ci xam ne bu doon ñëw stade day pop day diw day fecc day bëre mu neex mais bii passé dañ ma dig ay bloc ba sama xaalis yi ma war a jëndee bloc ma dugal ko feneen jour si kenn koo si woo téléphone du jël koo si waxal du la dégg ba nii may waxee yow maa kenn nag maa ci waxu tax kenn parce que bañ ma soxlaa dañ ma doon woo kon tey amee bis ñu trompé ma si sama tey jii ni samay supporters yëpp des ci biti ñiy des koñ ba ñibbiwaat daf may metti parce que match mobilisé lañ ko xamee kon bu ñëwee làmb tey jii nii ñun nax ko man loolu dafa may métti quoi match gunaas bu génnee ñëpp génn buy bëre open de presse bi gis nga nu demee mais bu ñëwee bu ñu mënul mënuñu quoi nañ ma bàyyi ma def ni ma doon def man maa doon jëndal sama bopp ay pieds mu fees dell stade bi fees dell mais bi passe autorité dañ si nekk da nga ne di ma jàppale ñi naan ma ñaari bloc ñi naan ma benn bloc naan ma ñetti ba jour si mënu ma leen gis trompé ma ci loolu samay supporters yëpp des si buntu stade. gars yi ñu wax. waaw gars yi ñu ngi wax ñu ngi wax. wax ci adversaire. ñu wax ci adversaire waaw nañ si def da nga ñëw plateau ñu waxtaan yow confirmé ñëw ñu yaatal loolu rek jeex na sax Babou Ndiaye ziar na dama laa bàyyi da nga jël sa yoonu bopp dama lay bàyyi nga waajal waaw ah, noonu la demee waaw kon coojow fan nga toll waaw pare nañ ñaan lu ma bébé bis mu wax gëm laa da xew ci làmb ji yaa koy def yaay puus yaay mbëri yaay daan ci kàttanu yàlla bu la neexee defal lu la neex waaye moo lay daan waaw yàlla baax na yàlla laa yor ndam maa ngi ñaan yàlla may ma ndam suturaal ma tey bis bi bëgg naa ko torop mais dama la gis tey nga sedd nu mu demee noonu. dañ maa yeb man dama daal gis may telli telli rek moom moo daan naxe maa koy nax tey. dafa mel ni revanche nga jël si tey de. non sama daanoon moo daanoon moo daan moo daan kii. ñooñu ñooñu su may grand lañ su may grand lañ ma leen nu nuyu mais suma carrière laay bëre. ah dafa moom jàppaguñ la ci mis. <laughs> laaj ko Ndiol. Oh, yow laay laaj. laaj ñoo jàpp gi ñu daal jàpp jàmm fi sant yàlla tey naka nga waajale di muñ ak moytu di def tekk ak rek ba am lu ma bëgg waaw gis nga xale yi topp sa gannaaw yi sant yàlla rek barke maam Seera Faal tey bésu lu mu laaj ànd dal tey am lu ma bëgg def différence dem ñibbi waat garaaw yi nii rek lay xaar de wallaahi ñoo may xaar ñoo may ñaanal mais yëpp sax sant naa leen gërëm naa leen di ñaan yàlla mottali rek incha allah rabbi baax na. Mbow looy kaas. ah eh, <coughs> looy kaas. si non kaasuma sama booy laay waxal wala. mais kan nga mu tey rek dal ñaan yàlla yàlla yor ndam yàlla may nu ndam loolu rek la ñaan si daraja Seydina Muhammad. nit ku baax la mais maa ngi nii sama ak li nga def ci làmb boobaa ak léegi nga toog. am naa combat maa rag rose. waaw am combat. non seen combat amagul woon date. mais instant bi ni ñu ngi kii date bi. waaw xam naa ne suba wala après demain da ngeen dégg lépp incha allahu rabi waaw. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant. làmb noonu la. la billaahi dama wéet nag si combat bi yàlla baax na mbër. comment junior. Yile am na deux avertissement Kama Junior am na deux avertissement arbitre bi wax na ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Yile Kama Junior eh Yile xar na ko Yile xar na ko da koy yenn lu mu koy def da koy daan waaw waaw Yile daan na Kama Junior yenn na ko ba ca kaw doo ko ca suuf waaw daan na ko doole doxul jàmm nee na dama koy duma yi la yenn na ko ba ca doo ci suuf tey làmb Kébé Diène xale la dafa am yoon si làmb yéen a si mun a jàpp war na yàlla fii ñii ñëpp ñëpp a ngi wax si kom a ngi wax si moom yéen a si mun a jàpp pour mu xale bu ndaw la am na yoon wallaay asim na erreur la yëfu xale la rek yëfu xale moo ko jàpp mais xale bu ndaw la ñu ngi naan nag ñu ngi sàkku ndimbal ngeen may ñu lool Babs VIP tamit mi ngi si yoon ak caatu kayre ak caatu kayre wallaay asim waaw yéen nag nga nekk xale di ko ñaanal bu ñu bàyyi parce que dafa am dafa am yoon si làmb avenir am moo nekk si bëri xale bu ndaw la moo daan moo daan rëg-rëg te daan ko dem Gàmbi dem fépp di bëri xale bu ndaw la kontaan naa ci ah kontaan naa ci lan kontaan naa ci waaw duma ko duma yu métti lii lañu soxla man <laughs> mooy waxtaan ak di ko conseillé waruma dal liggéey ndax tey maa fi nekkal Youssou maa fi nekkal Birane maa fi nekkal Ndiaga maa fi nekkal Futur Média yëpp li tax ma nekkal Futur Média mooy employé Futur Média la kon tey du yoon sax may reporté gis nga tey reporté wu ma Cheikh Ndiaye dama laa bàyyi nga kii damaa far ndax sama rakk la damaa far ndax suma xarit la ndax damaa far suma lépp la lu mu ne ma ne ca parce que moom lu mu nekk lu lu ma ne da cay ne kon moom lu mu ne dama cay ne ma lay ñaanal yal na la yàlla may ndam yal na la yàlla may ndam yal na la yàlla may ndam dama lay wax ne Futurs Médias yëpp ñu ngi sa ginnaaw Sénégal yëpp ñu ngi sa ginnaaw doxala. mais tey coach nga tey coach nga loo koy conseillé. li ma koy conseillé mooy. wulli wulli mooy daan boppam à chaque fois pas mu tey a 100 pour cent waxuma ko mu tey dafa am waaxu boo xam ni waaxu gëléem la xajul ci pantere mais waaxu bi dafa am heure boo koy waaxu ak heure boo ko dul waaxu heure boo koy waaxu xoolal sa adversaire li mu indi ba pare boo ko xoolee li mu indi ba pare boo ko waaxoo xajoo ci moom. am na seen leena dafa yàggoon bëgg ku bëreeg Sa Thiès bëree ak kan di daan fay bëreeg Yékini Junior Diène Kaïré Jaguar non nañu wax làmb moo waxul dëgg. waaw d'accord ma ne moo tax ma ne la moo tax ma ne la làmb moo waxul dëgg kon heure bi dañ doon wax wuli Boy Niang wuli Balla Gaye wu làmb moo waxul dëgg xoolal tey wuli ñi mu bëreel ñëpp ana ñu tey bonne chance. waaw noonu dafa demee man xam nga rek mu ñuul. andi nga nag waaw njaago la. tey naka bu wér ñëw nañoo dal di xaar li mu indi ñu fekk si ko ci waaw. lan ngay wax sa adversaire. am na combat de lu mu waaj nag. combat tax kay tax mu ñëw. dafa demee nag lu mu yaakaar nag nax na boppam tey waaw. kon tey waaw ucaa njaago bi chaque jour ak phénomène am. Ah. am na combat de loolu laa ko yëg. kon combat bi dox ci Fils de Katy Xarañ Saar Fils ci nekk jàpp nga benn loxo yaa ngi rokkas Fils de na ko mbot nañ ko mbot na ko waaw waaw xale yaa ngay bëre Fils ak Katy Xaañ Sarr Fils doon na ko baadu kaawo baadu ko doomu daanu Fils ak Katy na ko rof na ko taxabal ba oh waaw waaw waaw waaw da ngay daanu wala daanoogul eh na ko Fils ak Katy dafa jeexal Fils ak daan na ko Fils ak daan na ko lamba noonu. Fils de Katy daan na Xaragne Sarr cey làmb Fils de Katy daan na Xaragne Sarr jël maa ngi lay fay ci yàlla bu baax maa andi Youssou Ndour ah pour mu bëre am ndam rek. xale lay bëre est-ce que yomb ci moom. Ah, waaw waaw xale lay bëre xam nañ ko barke dem rek la fa mag daan xale. loolu muy kan. Ah, dama tudd tur waaye xam nga gis nga ko. Balla Gaye nga wax ak Bomba ji. waaw. mais yow naka nga gisee làmb jooju. non làmb amul làmb amul xale ak mag ku nekk bis bi lu mu la jaral rek bés dañ koy waaj soo ko waajee loolu bés bu jox rek nga jël bés kenn du ko foowee kenn du ko caaxaanee. làmb du caaxaan làmb boo xasee ba dugg ci combat ñi la bëgg ñi la bañ moo tax da ngay liggéey ba mel na koy waaj dee ndax da ngay bëree bari dee yàlla dogal nga daanu am ñu lay ñaawal te vraiment daanu neexul am na naanu yoo xam ne boo ci daanoo nag du la wàññi dara boo liggéeyee ba daanu ci yoon du la wàññi dara. mais keroog yaakaaroon nga ne combat Bombardier Balla Gaye dina demee noonu. waaw man man sax man sama analis ma joxe woon combat bi dama ma bett. dama parce que yaakaar naa rapidité bi woon ci bi ma xamoon ci Balla Gaye ak endurance bi ma xamoon ci Balla ak li mu di keroog si laa gis ni daal combat bi du yomb ci moom parce que combat bi li ka doon yombul ci moom mooy foog mu xeex moom xeex bu méttee méttee moom Balla waaw. boobu ma ku bëgg ku ko bëgg a gañe doo ko song yi. mais dama gis mu ko tàmbali xeex bi. jël ñaar coup yoo xamante ni bokk na ci ci la ci làq làmbam. mais dooy booy door da ngay wax booy booy door dañ lay door mais da nga bëgg a door te kenn du la door loolu mënu nekk booy door dañ lay door à part làmb am na bés yoo xam da ngay nàcc làmb jee laaj am na bés yoo xam da ngay arrière làmb jee koy laaj am na bés yoo xam ne da ngay dem jëli li nga moom parce que làmb jee koy laaj. mais ñu gis nawet Balla Gaye bi ñu simee ñu ci bari ne liggéey bi des na te ñu gis mu jël quatre combats. ak état de forme bi est-ce que li mën a yegg yenn combat yi. xam nga euh, mbër yenn yi suñu xasee ba àgg ci kaw suñu xasee ba àgg ci kaw dootuñu am ku leen xelal ba ñu jël sam xel. Euh, daan naa dégg yi ki ni mu ne mbër su bëggee nekk mbër lépp lu koy def mbër da koy def mais saa bu ba nekk mbër lépp lu koy yàq moom ci mbër mi ci boppam lay jógee. da kay moytu mbër du guddee tëdd. déedéet mbër du lekk ci bu dul seen kër. dama na koy wax man ne mbër du lekk fu dul seen kër dégg dégg ñu mbër du xaaraan mbër seen kër lay lekkee mbër day teel a tëdd mbër yomb na mais champion yombul mbër ak champion bokkul am na ñoo xamante ne fi ñu yeggee ci kaw fi ñu waroon a nekkee champion dëgg-dëgg fa la ñuy yàqale li leen doon champion wala kay ñi compter ci moom dafa bari am na ñoo xam ne tey bu bu daanoo dañuy perte seen bari. parce que dañuy teg ci moom xaalis bu bari kon buy bëri war na xam ne am na gannaawam dafa yaatu Balla Gaye du n'importe quel mbër bu doon si jamono yu jëkkee mbërëm buur lay doon parce que ñi yaatu si gannaawam dafa bari bari trop. lan nga koy xelal xale la lan nga koy xelal xale la avenir bi làmba ngeen ci kanam moo bëgg ay xale yoo xamante ni nii yàgg nañoo rêvé ku ci mel ni Boy Niang ku ci mel ni Gris Bordeaux ku ci mel ni Eumeu Sène lan ngay wax Balla Gaye mu delluwaat entraîné wut ay adversaires yoo am doole des entraînements ñu entraîné ak moom te mu bañ leen ëpp xam-xam maanaam lu ñu ko digal mu def ko doo xeeb kenn dégg naa nit ñi ñu naan papaam nekkatu fi père Balla nekkatu fi mais moromi papaam a ngi fi mère mi port Balla ngi fi na dem jëli leen woo leen ñu encadré ko ànd ak moom dara manqué wul yaay jëli nit ñi woo leen ñu ko entraîné si mbiru xaalis xaalis lañu ñu am. mais amuñu xam-xamu làmb làmb beneen façon la làmb xaalis du benn làmb ak xaalis du benn xaalis saful suukar mais mooy jënd suukar da nga ma wax baax ñi xaalis nañ ko dimbale si xaalis te bàyyi ko ak mbëri na dem wëri na dem wuuti ñoo xamante ni ay moromi papaam la ñu woon ay boromi xam-xam ay boromi xam-xam parce que écrit am na ku mel ne Mbaye Samb gisuma ko ci làmba ji bi passé Mbaye Samb gisuma ko maa ngi dégg ñu wax Lamine Golo mais Lamine Golo lu mu am xam-xam ëppul Mbaye Samb xam-xam te ay waalo waalo yu am xam-xam ñu ngi fi nit nag doo xeeb xam-xamam boo xeebee xam-xamam doo ko jëriñoo nit doo xeeb kenn mais fi mu toll na dem entraîné dégg naa ñu noo feebar na dem faju yi bu fajoo ba wér mu entraîné ba taxaw xam ni li des si ko làmbaam ay moroomam dans cinq ans ay rakam ñëw jël place kon mooy li muy def bu mu am na loo xam ne boo koy def doo tëdd guddi di ànd ak boromi xaalis di dem ci naaj club yi ay soirée Wally Seck ay soirée Massamba Mademba yooyu doxul gisuma ko nag dama ko dégg rek. kontaan naa ñëw jërëjëf. delloo ziar bi ci loone sant yàlla rek. tey naka nga ñëwee. waaw ñu waaj ak ànd ak samay mbokk waa Tëngéej rawatina waa Jokkul gépp mobilisé ne soma ginnaaw xam nga mais ñun. tëngee chauffeur si war nañu xoolaal li ñuy def quoi ndax dañuy bëri xama ñu ne ñoom duñ dem stade quoi. bilaay walaay si dañuy bañ a ñëw stade dañuy bañ a ñëw stade te loolu rafetul quoi xam nga benn fan war nañ ko war a mën a gérer imagine ku jënd ay BM jënd lépp boo yaa si yoon mi nii di paas di daw di ñëw loolu rafetul quoi xam nga président transporteur yi war nañu dimbali si loolu quoi jënd say ticket ba pare say supporter oto boo wax mu ne du ñëw te 35000 la ñuy fayeeku ñaari oto rek ñoo nangoon a départ yeneen yi yeneen booy itam si tali bi du doy oto loolu rafetul. lan ngay wax sa adversaire. nga wax ne moom tey gënu ma bëgg a bés bi. man loolu la nag mag nga nee na nag mag nga dina la duma duma yi naan mag laa di ma xool nii naan mag laa. loolu kay kenn la nañ bàyyi noonu rek ba dugg si biir moom gënu bëgg a bés bi gënu ma bëgg a bés bi te li mu foog noonu ah su baasoo day daanu waaw. billaay wallaay. Ah, waaw baax na gën a bëgg a bés bi. armée bu ndaw yaa jaar armée bu ndewraan caatu jolof armée bu ndewraan caatu jolof caatu jolof kal na ko kal na ko da koy daan oh bu ndewraan daan daan na caatu jolof ba sifle na guy gi moo ñu wan ginnaaw caatu puyol bi moom la ñu jaakaar lool caatu puyol guy gi deux guy gi deux moo ngemboo ngembul weex li caatu puyol bi moo ngemboo ngembul xonk li caatu puyol lañ teg tànk dox jëm ci guy gi deux jàppante na ñuy loxo guy gi deux jël na ko caatu puyol jàpp na caatu puyol guy gi deux caxabal na ko doxay daan vite fait bien fait vite fait bien fait Caatu Puyol Caatu bi daan na ko vite fait bien fait jom ak fulla di ko xam ne doomu Grand Médine doomu Grand Médine warul ragal daal loolu gis ñu mu ñëw xale yëpp topp ci ginnaawam waaw laa mu ni mel Grand benn bopp la kenn mu ñaar bu ñëpp bu jugee ñëppay jug loolu jugoy Grand Médine la waaye ñu di ma contacter bëri combat jànk combat jànk laa bëgg bu bëri ko. waaw lamb lamb moom mooy boole ku Karim Unca Unca moo ñëwoon Karim la jaakaar lool eh Outhia <laughs> eh Outhia bi yow eh, moom daa Karim eh waaw dëkk door la woon fayoo ko tas Outhia loo Karim. Uncaalo Karim loo Karim sàmmal ma say tànk punkal xajub ci biyeel Uncaalo Karim Uncaa saabu dooyee wala boog loo Karim jokkaa sànn Uncaa da koo bëgg a picc ma picc nga ci kaw waaye xel maa nga ca suuf Unca Lo Karim Unca Unca Lo Karim da ko bëgg a cokkaas mu siggi mu daw jël ko door na ko léegi moom loo Karim Unca Lo Karim donogu daanu Outhia Lo Karim door na mu daanu gauche droite la ko def eh, Lo Karim da koo doomu daanu Outhia jaaxle na. Ada Fass nuyu naa. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jawlax al misbah karafal fay naa leen. la ma fi. waaw tey dama war a am benn face à face man ak sama adversaire. moo tax nga jël san champion la champion la te ndaanaa la si làmb moo tax ñu jël ko. Mhm. bu jugee ci Tapha Mbeur jugee fa jëli jokkal ñu ci bëri nee nañu dañu lay xaalal yoon moo tax dem dugg ci jokkal. non jokkal champion la parce que sëñ Bamba jokkal champion la bilaay walaay talaay. ngeen war a ñëw def face à seen premier face à face wala deuxième face à face. non bi mooy deuxième face à face. mais daa mel ni moom ñëwul. waaw mais nag gisaguñ ko gisaguñ ko waaw. mais lan nga na waajal sa diggante waaw waaj rek kon li doon waajee suñu laam wi ñaan yàlla yàlla bi yor ndam yàlla may ñu ndam barke sëñ am nga combat bi fu mu la mën a yóbbu bu baax a baax a baax barke sëñ Bamba na nga waax wàññi entraînement yi wala yaa ngi yokk non ñoo ngi si kawam bu baax a baax ah, na kon ba ci kanam jaajëf bi la ziar waaw maa ngi ziar bu baax a baax dégg nga ci loone ñu gis la nga ñëw fi bëgg wala def jàkkaarloo ak ki nga xamante ni nii mooy caatu ñu ngi nii rek ñëw ànd ak suñu mbokk war a def face à face bi xam nga ñu ngi waaj bu baax a baax nag combat bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax day ànd seeg waa Malika waa Yëmbal yëpp waa Kër Misaar. nee na nag wax nga taw nga fu nekk wax ba combat bi taxaw. moom damaa jàpp ne moom daf ñoo xamul moo tax parce que ñun kenn xame moom daf ñoo xamul moo tax parce que ñun kenn xamee ñu wax xam nga moom moo nekk di wax wóor fu ko neex di wax ba bi taxaw man ku ne xam ne man du ma dégg avance kenn ku ñëw da ngay ñëw ñu bëree yaa ngi dégg maa ko gën a baax Paul Maguette fuus fuuf kon man aw ma lu ma koy déggoon a mu naan dégg naa ko mu naan man maa topp si rajo di ko tëkku te yaa nga xam ne musuma koo tëkku dañ maa wax sama combat benn rañ ma wax ma validé yaa nga xam na ko mais nag ñi ngi ñi ngi si dee di ànd ak suñu ay mbokk mais combat yi gën a gaaw moo ko bëri yi gën a gaaw moo ko bëri man combat yi gën a neex maa ko bëree waaw sa digganteeg moom yaakaar nga ne dina gaaw non faamu duma ko duma moom duma jàpp barki Alxuraan kër maa la ko wax fii bindal dinaa ko duma duma yu métti dinaa ko daan loolu man maa la ko wax. caatu yaa pànk de. billaahi laa ko waatal dinaa ko duma duma yu métti te dinaa ko daan loolu man maa la wax fii tey bindal. lan nga koy wax gannaaw ñëw. aw ma dara ma koy wax comme que ñëwagul man aw ma dara ma koy wax parce que tey jii nga xam ne du ko ak morom ba te ñorul moom dafa war ñëw taxaw yaa ngi dégg ñu xool nuñ ko gisantee moo xam ne du man ak waaw yaa nga baax na. Ah, di sant sama sama coach Maxi Père maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax li war si man yëpp moo ngi koy def maa ngi koy sant bu baax waa di sant waa dëkk ba sant maa ngi sant waa Bawol gépp maa sant juróom-ñaari jëfuñ paal yi di leen wax doom amati na combat nañ ma ñaanal ma daan ko waaw di neen li ma la wax rek ñaar dinaa ko dab dinaa ko daan mooy dab waaw mooy dab daan dinaa ko dab dinaa ko daan waa champion la barki Sëñ Fall champion la moo tax ma bëggoon jël ndax moor instant yi bëggatul lu yomb lu metti rek waaw ndax saa dafa jot dama war a dem si ponkal yi barke Sëñ Fallou wax ji moom mu féetewoo jëf ji waaw amul problème ba jour ba ba ñu tëj barrière yi bu ñu tëjee barrière ba dongali njam li dee ñu xam kan mooy jëf. amul benn problème. waaw loolu dama ko sant yàlla dama dama bëgg na mel ni ku bëgg mel ni ku bëreeg moom moom mi laa bëgg rek a bëreeg kese. waa di woo waa Bawol. maa leen di woo ñoom rek laa am ak waa Colobane bàyyiwuma bawol gépp daal tout bàyyiwuma leen di sant sama yaay di sant sama papa di sant maire Ami Fall bu baax di sant Maas bu Njëfun Fall Ablaye Fall Alatin sama mag maa ngi koy sant soq sama mag soq sama mag la sama mag Siteu maa koy sant doomu Jalaaw uma fayam bàcc Balla Dia mafia boobu yëpp ñoom su mel ab Ablaye Ndaw ñoom Moussa Ndiamé ñoom Mame Djibi mafia bépp waaw Matar tik tik boo jam ñaaji 1 ba 22 ma kenn ñëw leen ma jàpp Mor Kankan dafa la ko bu cuur insha allahu rabbi yàlla na yàlla ànd man bu yàlla ànd ak man bu yàlla ànd man si kàttanu yàlla bu bëree bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko insha allah yàlla na yàlla ànd bu yàlla ànd man yàlla xam na ko bu yàlla ànd ak man su bëree su bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko yàlla xam na loolu barke sëñ Abdou Karim Mbacke laa la gidé am na benn Wouly amaat na deux avertissement Wouly am na deux avertissement Wouly am Lissé Wouly day dem wala am Lissé dem yàggatul dara Wouly am Lissé abit sifle na wuli moom la ñu jàkkaarloo am lii sa wuli jël na ko wuli jël na ko wala am lii sa jël na ko wulee ngi koy dóor wulee ngi koy dóor wulee ngi dóor am lii sa plaqué na ko wulee ngi dóor wulee ngay dóor wulee ngay dóor jël nañ ko wuli jël na ko wuli am lii see wuli am lii see wuli am lii see wulee ngay dóor wuli jël na ko añ na ko wuli añ na am lii see am lii sa plaqué na ko am lii see wuli am lii see wuli ee eh, wulee goog <laughs> wule yi noonu am li sa jàpp na am li sa jàpp na am li sa wan ginnaaw wulli moo ñu wan kanam wulli am eh, li sa eh wulli na ko am li sa jàpp na wulli fan la yegg sori na eh wulli ngay bëree Amlyse Wouly Amlyse Wouly Amlyse dafa bëgg lu mu jàppee ba daan waaye Wouly du ko ci bàyyi noo mën a def di nga ñam Amlyse Wouly Amlyse am jàpp na Wouly am na benn loxo ci ngemb am liise wulli ee am liise daan na am liise daan na wulli da am liise daan na wulli wullee ngay tëdd wax am liise daan na wulli wullee ngay tëdd lan la wax wéyaay wala wéyaay yooyu moo teefee ma daanu na moo teefee ma daanu na <laughs> ee eh, Fatma arbitre bi sifflé na Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye a ngi dox ci kaw Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi daw nañ jàppante daw nañ jàppante Baye Mandiaye Bébé Bismi eh Baye Mandiaye Bébé Bismi door na ko Baye Mandiaye Bébé Bismi xale yaa ngay xeex Baye Mandiaye Bébé Bismi Bébé Bismi ma Mandiaye mayu ko dara arbitre daa sifflé rek mu dox ci kawam mbot caxabal na ko Bébé Bismi lu mu bëgg def Bébé Bismi lu ko bëgg a def Bébé Bismi Baye ma Baye Mandiaye da koy kal kal na ko kal na ko bañ na Bébé Bismi Baye Mandiaye <laughs> Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye mbokk yi wala boog bébé Bismi am na carte avertissement su amaatee beneen làmb ja day jeex Baye Mandiaye bébé Bismi dañoo sonn bis bi Baye Mandiaye Baye Mandiaye Bébé bis bi taxawal Baama Ndiaye am na ndam Baama Ndiaye am na ndam Baama Ndiaye am na ndam Baama Ndiaye am na ndam Baama Ndiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi Baama Ndiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi Baama Ndiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi arbitre ba sifflé na combat bi dox ci diggante Youssou Ndour bu ak Vieta Seha il est 29 janvier Vieta Seha moo ñu féete à gauche door na ko ñaari coup Youssou Ndour Vieta na léegi Youssou xeex na ak Vieta Vietnam moo ñëwoon ginnaaw Youssou Ndour lay buggi Youssou Ndour Vietnam eh xeex nanu Vietnam Youssou Ndour Vietnam Youssou Ndour daw na jëli ko Youssou Ndour jàpp na Youssou Ndour Vietnam Youssou Ndour Vietnam Eh, eh, Youssou Ndour plaqué na ko léegi waaye Vieux Dacia dafa diis Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour supporter Vieux Dacia yi jóg nañu Youssou Ndour Vieux Dacia Vieux Dacia ngay dóor ci suuf Vieux Dacia Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour Youssou Ndour Vieux Dacia door na ko léegi Sia seen combat bi yàgg na Vieux Dia Sia ñoo ngay xeex ba doomu daanu du ci am xeex na nu léegi xeex bu metti eh Youssou Ndour eh combat ba neex na Youssou Ndour Vieux Dacia Youssou Ndour xeex na ak moom eh Youssou Ndour Youssou Ndour dafa mel ne ku ñeme Vieux Dacia ñoo ngay xeex Youssou Ndour Vieux